bi nga xamee ne nag mbir yooyu yëpp am na des na tuuti lu ma tëb ca ci Lambaréné loolu père Renago moo ma ko nettali nee na ma 1898 ci la ñu jàpp Samori Touré indi ko mu nekk Njole Njole foofu tribunal militaire bi ne Samori Touré nag Guinée la jógee woon àndoon naag soxnaam ak doomam Tranché Mori bi nga xamee ni ñëw nañu ñoom juróom-benn téeméer lañ daan daan daan fay waaw moo ak ak famille seen pension juróom-benn téeméer dërëm la daan te may nañu ko it mu tànn ñi ko neex ñi mu bëgg a àndal mu may ñu ko mu ànd kenn xam naa bu ko sàkk woon sax daañu ko def waaye. dafa bëggul lii ñuy wax di xuubar xuubar yi naan maa def nangam maa def nangam te kenn deful dara kenn ku def dara amul ci yoon wi ku dul sëñ Tuubaa liggéeyoo ndax ba sëñ bi liggéey liggéeyam boobu ñëpp a ngi ne ci seeni kër di di bànneexu di togg di lekk ba muy sonn moom dong te kenn nanguwul a ànd ak moom kon lu fi am la Seyid Abdul Qaadir Lahat waxoon rek ba mu nee ci àll ba di liggéey nit newul woon ci wetam naan ko amiin Muusa la tàmbali aw bayit itam nit eggaleetu ko kon kenn deful tus yi bu nu bëggee aw jub te bëgg amal daraje sunuy kilifa bu nu leen dendaleeg sëriñ bi dendale kenn ak sëriñ bi loolu moom ay caaxaan la te sëriñ bi it nanguwu ko sëñ Madou Gay sëñ Madou Madou Gorel Jaxate nettali na ma ne ma sëriñ bi day danoo nekk njaareem ma di ko bés ba mu yàgg mu ne Madou Gorel mbaa bokkoo ci ñi nga xam ne dañ may sàkkal moroom ne ma ne ko ñaanuma ko yàlla de tafasuma ko yéene mu ne ko boo ko defee bu demee àllaaxira da nga gaay am gàcce gu rëy ndax duma moroom kenn ba may liggéey itam kenn liggéeyu ñépp a ngay bànneexu ma liggéey sama liggéey bi kon nag duma ko baas kenn mu di ko yàq duma ko baas kenn mu di ko yàq kon euh, sëriñ waaw sëriñ Euh, sa kii Renago yi daal di wax ne père Renago kon daal di wax ne euh, baayam nee na ko 1898 la ñu indi Samori euh, ak famille ci Njole bi ñu ko indee Njole nag mu nekk fa ba 1900 ñaari at la fa am yu tegal yi weer mu faatu. nee na bi mu woppee bay bëgg a faatu daldi yebal saranke móori doom ji ne ko demal lambare ne wax Cheikh Ahmadou Bamba ma fa ne nga ne ko jébbal naa ko sama bopp àdduna ak alaaxira maa ngi koy ñaan bu ma faatoo na ñëw jullee ma nee na bi saranke móori ñëwee wax ko sëriñ bi baayam nee na ko sëriñ bi da ko wax ne ko xanaa Samori daal xamul ne kaso ba mu ne foofee moom ci kaso bu mel noonu laa nekk fii li tax mënut a ñëw moo tax ma it mënumaa dem foofa dalit ti bu suuf ñaan ca ne leen bu ngeen demee bu faatoo ngeen boole foofu moom waaw nee na noonu la noonu la def ak Samori ba mu ba mu demee fekk Samori faatu mu dal di koy ñu daal di koy boole ak moom yàggul dara sëriñ Samori faatu mu ñu daal di koy boole ak nee na am na bis itam sëriñ bi taxaw jublu benku di julli ba mu jullee ba noppi nee na yi la doon jullee waaw sàmmoori nga ca njoole sëriñ bi nekk lambarene di ko jullee waaye lool it xam nga du kiimaan ndax yonente bi salaa sallam bi ko yàlla yónnee te wax ko ne ko léegi wa ma yi ila kaffatan linnaas dangaa war a wut ay mbooloo yónni leen ci réew yi xamal leen ne yaay yonent bi dañ la topp ñu tuub ba mu yónnee ba mu sàkkee jëlee jaafaru jaafaru saadiq boole kooku arme boole kooku ay kilifa ne leen dem leen ca najaasi buuru Éthiopie bañ demee najaasi dafa daal di tuub ci ci jaafaru tayyaar jaafaru saadiq ba mu tuubee yàggul dara mu faatu yonent bi ne ca Madina kee nekk ca Asmar ca Éthiopie mu woo saxaaba yi ne leen Jibril tàgge na ma yi kon nag kay leen nu jullee ko jullee googee moo waraloon sëñ bi di jullee ma euh, Samori ca Njole ngir roy yonent bi sallallahu alayhi nag bi ñu dajee pour xalaat sëñ bi ñu yóbbu ko Madagascar wala ñu delloosi ko ba mu defati gaaf may ko liberté provisoire xam nga ñëwul ñibbisi de liberté provisoire laa amoon bi moo tax ñu daal di nekkoon nag léegi nañ ko def loolu ñu daal di xëy ñëw fekk muy naafila ab yoor-yoor ci mois de octobre fin octobre nee na euh, ñu daal di koy wax ne ko léegi dañ lay may liberté provisoire delloo la Sénégal. dajaleel say bagaas daal dajale bagaasam ñu daal koy dugal ci gaal mu ut si Sénégal ba muy dem ma nga jaare gaal gaa nga jaare ji Lodima ma nga jaare ji euh, Matadi xam nga Brazzaville amul port waaw euh, port bi mooy Pointe Noire waaye Brazzaville amul port euh, Kinshasa portu Kinshasa mooy Matadi foofu lañ koy wàcce dugal ko ci gaal yu ndaw mu ñëw Brazzaville waaw déedéet port bu ndaw bi bra portu Brazzaville dafa baaxul dafa amul solo waaw ñëw indi ko Brazzaville waaw door koo duggal nag ci gaal yi ndaw yi war a mu mu ñibbisi moo tax mu wax ne biñ ko départ bi mu déparé Mayumba day eh, dugg ci gaal wuti Matadi ba mu demee ba Matadi ci lay waxee naan أنساني يمتداح ندب حتدي jumlata ma laqiitu inda matadi tagg gu may tagg yonent moo tax musiba ma ma dal ca matadi yépp ma fàtte ko maanaam dal di jaar foofu nag dugg nag ñu dugal ko ci bateau mu dal di wàcc fii ci Ndakaar ci la 11 novembre 1902